Fall ginaaw sax sorti ñu gis ni démb Thierno Amadou aussi genn na fa na xamni te itam zaanu tango yu Seneweb japp na ni euh, mi qualifié fi dem politesse waaye ki nga xam nekk moo aussi euh, Madiaba Diagne jagne ci guddigi genn na fa na xamni te itam TFM di li na xam nekk moo Soir d'Info moom itam japp na ni euh, ki na xam nekk moo Babacar Fall limi wax tegu ko fenn te itam kenn yónni ko exactement mu nek njiitu li nga xam e nekk moo UFP nek journaliste fi senegal Sénégal exactement alors Arfan aujourd'hui de part et ñoom ñoom Birame Touré ñoom Passane Seck euh, ñoom euh, ñu bëri ba si yow yaa ngi euh, soutenir ki na xam ne que moo di Babacar Fall mais lu pourquoi benn contre-pied am si beneen li nga xam ne que moo di si yeneen journaliste yi Madiambal Diagne génn na Amadou Thierno Amadou si aussi génn na aussi Cheikh Amadou Bamba Guèye fa nga xam ni itam RTS mi ngi rafetlu bu baax baax moom nee na euh, président Macky Sall liggéey bi si wàllu journalisme si wàllu presse sénégalaise exactement la RTS ñuy euh, ñëw en compte pied avec. <laughs> mais, mais, <laughs> la presse tu as bien dit la RTS. ak nga cité Madiambal ñoo ñooñu ñëpp ci nguur gi lañu bok cene Thierno Amadou Sy. ñooñu ñëpp ci nguur gi lañu bok cene Thierno Amadou Sy. bien sûr. xam nga xam nga Sénégal li la lay waxati. gis nga ci walu euh, gis nga ci métier bobu gis nga ci métier bobu Seigne Fallou gis nga ci une division quand même. voilà merci gis nga ci métier bobu. mais Synpics moom mu ngi taxaw ak wa CAP. waaye gis nga ci division gis nga ci métier bobu. métier journaliste fi Sénégal Walum journaliste fi ci Sénégal dafa am division ñaari camp le camp gis nga politique politiciens li ñu amé division ci ñaari camp pouvoir ak opposition. Hmm. ci walum journaliste journalisme au Sénégal. lool la amé ñaari camp ay journaliste régime bi. Hmm. nguur gi ak ay journalistes opposition c'est ça la réalité ah, oui <laughs> man dama opposition c'est le peuple sénégalais le peuple sénégalais parce que si la majorité c'est le peuple qui mm. oppose mm. à ce régime mais c'est le peuple sénégalais mm, motama japp ni ay <laughs> c'est pas une information on n'attend pas à ce que madjambal Diagne mu soutenir Babacar Babacar parce que Madjambal Diagne c'est un proche du président de la république Je ne sais mais Madjambal Diagne ci loolu. est-ce que euh, les paroles de Madjambal Diagne ont impact un impact sur la société sénégalaise. non si non non non. Hmm. non non non non il faut pas se leurrer la face il ne faut pas se voiler la face les paroles de madame Diagne amul impact ci ref ci sénégalais yi. reflété mais euh, Cheikh Yérim Seck aussi mi si si li que ça soit Cheikh Yérim Seck que ça soit Cheikh Yérim que ça soit Madiambal Diagne ak keneen ak keneen seen parole seen wax amul impact ci société sénégalaise. parce que dañoo dem ba découvrir ces arts de journaliste ñu catégoriser leen dugal leen ci benn benn mbuus jeex on n'attend pas à ce que un Madjambal Diagne oui Baba Fall le mot d'Afni, on est fier de toi en étant journaliste hein, on est fier de toi on n'attend pas à César de proposer Madjambal Baldiagne Diagne bu leen xaar it ah lu mel noonu ci ci ci ci mm. de Baba Fall mais non mm. il ne faut pas attendre ça de de de mm. man xaaruma ko je suis ci sa morom journaliste même bu juumee danga koy faral publiquement laa la wax. Hmm. mais bu boo leen wàccee ci caméra yi micro yi yëpp wàcc ne ko a ah, mbër ah. juum nga juum nga bu ñu sañoon beneen yoon booy waxat nga wax lii nga bañ a wax laal lee loolu la ñuy faralee nii. mais ñoom da ko recadré même ba ci lislaam Cheikh al al Maktoum Cheikh Tidiane al Maktoum radiyallahu anhu dafa ne. Hmm. sa mbokk bu juumee faral ko. Hmm. boo leen delloo ci kër gi nga ne ko juum nga de juum nga de nga xelal ko teg ko ci la droit chemin mais sa morom juum sa mbokk juum ah ñu ngi koy faagaagal ci mbedd mi yow nga taxaw croiser les bras wala nga jàppale ñooñu yow doo mbokk naa fekk nga de doo gor moo tax man dama jàpp ni journaliste bu juumee journaliste bu juumee da nga koy faral en dehors des nga ne ko ba beneen beneen yoon booy wax. bul waxati li bul waxati ah, li c'est ma jàpp ni journalistes yi défendre ah. ils ont ils ont raison parce que métier bu ne dafa am syndicat dafa hmm. syndicat. dafa am dafa am. solidarité ci métier ci métier de euh, solidarité donc journalistes bu solidarité journalistes menace franchement voilà. Mounazzam Mori moo na euh, alors donc mi ngi noonu je pense que euh, l'auteur bi nga xamni tam itam euh, ki moom waxal di président Macky Sall réagirul donc nga la waay Mounazzam Mori moo na ñàkk te xam ne suñu genre journalistique la daal di war a bokk exactement donc c'est clair merci beaucoup Arfan ça a été un plaisir, chers téléspectateurs, de vous accompagner durant toute la longue de cette semaine. En semaine, na franchement parce que hein, un de toi, vendredi donc euh, merci beaucoup bon le encore une fois un hein, euh, mm. plaisir donc une fois de partager le plateau. de def émission comme d'habitude Tolku matinal ak euh, yow di la nuyu bu la de 5 TV maa di jaajëfal di jaajëfal suñu euh, internet yi. ñom xamna mom bu suma jume ma duma <laughs> ah, ils sont nombreux. bank bank bi mon frère bank bank bi euh, bank bi mon frère ma lay nuyu bu mm. baax nous di nuyu aussi Thierno ah, di nuyu ñepp ah, euh, ISCOM ma lay nuyu. di aussi Amadou Fall donc malin lay nuyu aussi. Boga Ba aussi, Boga hein, ba. même si tu as mm. tiré sur nous, c'est mm. c'est pas grave, c'est comme ça le, le métier. Merci beaucoup. Yéen ñëpp hein, voilà. Euh, euh, ñu leen di ziar voilà ñu leen di ziar ñoom ñëpp hein, ñoom ñëpp hein, mm. ñoom ñëpp maa leen di ziar di leen eh, jaajëfal di leen souhaiter juma mubarak ci ajuma bi. di ko sàkku ci yéen aussi. di souhaiter ñëpp surtout la diaspora sénégalaise. nga ci ngalaama vous aussi euh, di leen souhaiter euh, aussi juma mubarak alors juma mubarak chers téléspectateurs li ma nekkoon seen émission li nga xam ne moo di justement tolku matinal bu tey bi dernier numéro de la semaine merci beaucoup de l'avoir suivi ni leen jaajëf bu baax a baax ànd bi su ak suñu programme donc de leen daal retrouver li nga xam nekk moo di euh, en demee incha suite def mais quant à tolku matinal dina dem ba li nga xam nekk moo euh, lundi incha à partir de 10h30 on se retrouve à nouveau merci beaucoup durant toute la semaine avec l'ensemble euh, des équipes qui nous ont accompagnés bokk na woon si équipe bi Tafa ñom Mamour et tant d'autres et tant d'autres donc merci beaucoup alors bossu de nos programmes est passé des excellents moments sur Sénégal 5 TVA si kanam tuuti incha allah dans midi d'info jumaa mubarak from the lecturer, from the lecturer.